tabatu tuuba daaru saam njiit la di bàyyi sëriñ lay ñu ràññiku lool ci bépp jumtuwaay bu jëm ci dundal diine mu yaatal ay bànqaasam nag lépp lu ngeen soxla ci wàllu alxuraan ci mbindin yu wuute ak ay mool yu wuute rawtina kaamil yi nga xam ne sëriñ abdoulahan mbàkke moom sëriñ soy bu moo ko bind wala sëriñ amdun loo wala sëriñ as jaxate waaye yeneen xeeti kaamil ba ci kaamil yu doore yi nga xam ne ñu bëri taamu nañ ko ngir joxe ko àddee wala jox ko ku ñu fonk bu dee téere xam-xam yi niki noonu wala téere sëriñ Abdourahmane Mbacke Daaru Muxti wala téere sëriñ ji Mbacke yi nga xam ne moo xam muy tombi sëriñ bi di waxtaani sëriñ bi wala sax ma faatewul jinaan di diiwaan bi nga xamante ne bii dajale na lu toll ci juróom benn téeméeri xasaayit ak ñaar fukk ak ñeent bu dee élèves yi tamit dañu leen a beral loxo bépp téere bu ñu ñuy teewoo ci seen wàllu programme moo xam muy arab wala français am na fi lu jëm ci wàllu col lépp lu ngeen fi baaxoo gis rek dañu ko yokk waaye wàññiwuñu ko. Touba ca kanam. ni mu doxee ak fi mu àgg sëñ Touba rek la. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma tey ni mu doxee ak fi mu àgg niiw na mbooloo mu jóg dara tax leen jóg ñu jóg àgg fa déedéet dëgg sëñ Touba amul benn société boo xam ne. yaakaar naa ne mën na ko war na ko mën ëpp doole ci Sénégal wala bu ko ci ëpp doole doxee tuuti dana tiim société yëpp ndax sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek la ak mayam yëmul fenn fu ngeen bëgg ma ko mën na ko dina ko fees bi nga xam ne man caa bokkoon fii lañ ma fekkoon a ànd ko yéen ndokk bi nga xam ne caa bokkoon mbokki taalibe yi képp ku bëgg a barkeelu ci Touba ca kanam ngeen yónnee Wave wala Orange Money ci numéro bi 78 544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 ca Touba nga xam ne ñëpp dañu leen ràññee ci sanitaire lépp loo bëgg ci sanitaire jaaree ko ci chaise anglaise suspendue ay armoire lavabo ay baignoire et cabine hydromassage ay levier de cuisine américain ay chauffe-eau électrique ak solaire léegi soxlaatul ngeen di dem Ndakaaru wala ngeen di dem à l'étranger di commander quoi que ce soit lépp am na ci showroom bu CCPS bi nekk Touba ci wetu rond-point héliport loo soxla ci robinet colonne ou chasse d'eau accessoires complets pour salle de bain anti-rouille. Toute la gamme de tuyauterie polyéthylène est présente à CCPS Touba sur toutes les dimensions. Des fontes de très bonne qualité avec toutes les dimensions, ainsi que des motopompes en collaboration avec la marque Shimg. Des fontes de très bonne qualité afin de promouvoir la consommation locale. CCPS fournit des tuyaux d'irrigation, des gouttes à gouttes, des rain pipers pour nos amis agriculteurs. Bâtiment plus sport si Touba mbokk yi ak si ngeen lépp lu ngeen itteewooti si wàllub caro import caro ba gën caro ba nga xamante ni moom la ñuy itteewoo si mbooleem àdduna wërngal këpp jàppaleen ay caro yu ñu importé ba Espagne Italie Chine si dëkk yi gën a mag a mag ñu ràññee leen si wàllub liggéey caro dama ni mbokk bu ngeen ko itteewoo si même réew bâtiment plus import export du ca morom waaw ñoo leen yembal ay caro sol faïence Italie ay grès céramique italien ay faïence espagnol cent soixante sur soixante carreaux de haute ay grès italien tout genre venant d'Espagne vingt sur quarante sur damani am nañu ay produits yu Inde sur trente sept wala yeneen gox yu àdduna wërgal këpp ay faïence pour seen cuisine bu ngeen bëggee mu taaru rafet loolu bâtiment plus import export ak sina moo leen yembal ngir seen taaru waañ sur trente sept lépp mu ci waaye nag mbokk yi ñëw leen ngeen découvrir suñu ay lumière am nañu ay contact dernière gamme ay lumière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 moom la gaa yu baax yi defoon ab yóbbal na leen ko suñu borom subhanahu wa taala santano sante woon wa tazawadu fa inna xayra zadi taqwa mu wax ne ku am taq taqwallahi bu yàggee ba yàgg yàlla dana ko xamal te ko yàlla xamal duutu fàtte wattaqullaha wa yuallimukumullah loolu lañ ciy dal di mooy kon nit ki amut ci àdduna jotug lu dul wëri fu lu baax nekk bu demee ba ko fa fekkee ak bu ko fa fekkut yëpp yéeneem rafetoon na su ko fa fekkee jariñu na su ko fa fekkutit jariñu na ndax xam na ne foofa njariñ nekku fa mu wuti fenaan tomb bi dañ koy tënk lenn ci li mbokk mi doon fàttali léegi muy majalis majalis am na ñaari xaaj ëpp na ko dañ ci tànn benn rek tey am na lu ñu tuddee majalis walla majlis te fekk ña ngi ca jublu koo xam ne mbooloo ma dañ koy wër ku ne yor ab téere mu di leen tëralal mu ci gënoon a siiw ñu naan léegi mu ngi jàng majlis wala ma ngay jàng ca majlis ba du fii rek ñoo ko am yaatu na waaye bokk yi am na yeneen walla beneen boo xam ne tuddeetuñ ko majlis waaye xadara rek lañ ko tudde moo gën a yaatu nag ndax xadara pays ku ne dana fa yóbbu lu nekk ku ne dana fa dem lu ne dem fa bu fekkee bi ma dëkk wax la nag muy majlis boo xam ne dañuy wër ka fa nekk tax faa ñëw ñépp kum tëralal jàll ci keneen léeg-léeg mu boole ñaar ba ñett benn téere tëralal loolu leen ko seet keneen ci raw mu toppal leen ko loolu bëree ci ñi ñuy fekk de rawati nag nekk ca nekk ca ba bu waxtu julli jotee mu ne fojjat jiite mbooloo ma delluwaat ca lam nekkoon loolu bëree kon nit ñi nañ seet bu baax a baax a baax seeni majaalis fa ñuy dem ak ña ñuy toogal gannaaw soppiku ne tudd xadara léegi mooy pays man sax xadara ba ma ko daan dégg ca mag ña pays suñu borom ba lañ ko tudde woon waaye am nañu ko sàcc li muy xereñ xereñ am nañu ko sàcc tudde ko xadara ñoom itam ñu ñu fay dajale ku nekk ak ñu nekk ak lu nekk diina nag waaraate la ak yeete ki neex a waar nag mooy kuñ ni yeebam na jar la mag waxoon ne kañ ñu booleeloon daf ñoo jàngal bañ na ar mu yër mu yar na bañ na nër dolli nañ ca nag boo xam ne mën naa ànd ak ñoom ku jàng ba ne ar yaru ba ne nër faw mu yeewu ba ne jar ku yeewu nag moo neex a waar ndax dana am loolu du sañ dana xàmme lu muy ragal ak lu muy xeemeem ragal mbugalum suñu boromam ëllëg ak xeemeem payuk suñu borom googu ëllëg suñu boroom nag àdduna ci majalis yooyu wala majlis ba nee na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla ak li gëm yàlla di àndal lépp bu ngeen fa dematee ci ab majlis bu leen fa yóbbaale ak rëy bu leen fa yóbbaale xel mu gàtt bu leen fa yóbbaale it ka ngeen fay fekk fu mu leen joxoñ rek ngeen jëm fa déedéet waaye nag jox leen cër ña ngeen fa dajeel ba buñ ne la sëñ bi toppal nee tuuti bul ca teg baax buñ ne te nga jóg deme ne donte nee nga ne xam xamaara bañ dale ko wax it bul ca teg baax bu dee majlis la boo xam ne dañ fay joxe ay bind laa bëgg a wax nag yaa ayuha alladina amanu ida qila lakum tafassaxu fi lmajlisi fafsaxu yafsaxi llahu lakum wa ida qila nsudu fansudu yarfaci llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat kon ab jullit war naa yeew ba mën a tànn majalis yooyu nag bu weesoo bii ma jëkk a wax nga xam ne moom daara la dañ fay jàngale xam-xam di fa wan nit aw defiin wu koy dimbale ci jëflanteem ak digganteem ak moroomi jaamam ak digganteem ak boroomam fu mat di dem la boo fa masaan dem danga fa fekk mag fekk fa ndaw danga fa fekk ku bokk fu nekk sant wu ne daal laa bëgg a wax ak ku ne diwoo ko jur ku nekk da ko fa fekk ñu bokk di fa taataan ci kenn walla ci ñenn ñoo xam ne lañuy ñuy dagg la def ca ñoom du weesu nu nit kiy def ba jariñu ci àdduna ak njariñ loolu buy dem àllaaxira man ko faa dawal mu fekk ko fa bàyyi ko fi it ñu di ko ko màndaa gannaaw kon boog ku ci yàlla dimbale ba mu tàmbali caa am bu muy jariñoo na fexe ba saa bu fay jóge mu ngoor lu bari yóbbaale ko am na ay melokaan euh, ku fi yóbbaale jikko joo xam ne gënut na ko bàyyi ci bunt bi te fas yéene jël ci jikko yi nekk ci jotaay boobee bu fekkee ka ko ka koy joxe mooy ka ko war a joxe te mat ku sëkk danaa ñëw ci xadara waaye jataay bu mel ni bii sallallahu alayhi wa sallam daan tooge ak mag ñi ko wuutu gannaawam moom a tax di gën a wax di laaj ba xam mi ngi am ba tey waaw wala déet. jataay boo xam ne dañ toog ba yàgg ñu ne waaw masala sàngam moom lu ci sariya wax tàmbalee laaj ba ca ca kaw loolu bu fekkee mi ngi am itam bariwut de yóbbu fi barab masala di ko laaj duñ la may sànga wax dañ naan la ku nuyoo dem. ku ñëw na gaaw topp ñeneen ñëw waaw ñeneen ñooy ñëw lu ñu fay def gannaaw kii moom gàkk na ci diine gàkk na ci ab jëflante bi diine santaane diggante mag moroomi jàmm fu muy gàggante ko bu dul foofa kon bokk majaalis yi mat nay teey bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de nee na woon ku gëm ne yàlla ku am la moo fi jiitu moo fi ñëpp dañuy dem bàyyi ko fi mu neefi te du fi jóge mukk jurul kenn kenn juru ko nuréewut kenn dara saa boo defee ci sam xel mu rëy ba ne nii la war a mel loolu loo xam la loo loo peeg la fii la tàmbalee yem fee du yàlla ku ko gëmee noonu gëm ne bis dina ñëw mu nat ji fi jaam ñi bu ko mbooloo dee ñëwal muy borom majlis ba kenn ku ci nekk na la yaatalal ay loxoom may la bëñ bu weex tàll xool la bët bu leer boo xam ne loo ko bëgg a laaj ci diine su fekkee nituk diine la mu mën la koo leeralal man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu kooku kañuy fekki moo tax muy wax waaye kay fekkee ji nag am na wàll moom itam mooy ne kott di déglu du def yitteem ci lu dul lam fay roote fas ko yéenee yóbbu jariñoo ji ko ci ñi niy jariñoo am ndox ndox liñ koy jariñoo naan tuuti la ca mu dundu nit ñoo ànd waaye da gis ku dem fi barab boo xam ne lii ma wax lañ fay joxe wala boog moom lañ fa war a joxe yitteem jépp nekkul ci lu dul di filmer nit ñi moom moom jamono boobee koo koy wax moom la muy wax jëlu ko mi ngi seet ku mu war a kaadare ci mbooloo mi ku war a jël ak ka topp ca moom ak ka yëkkati loxoom joxoñ ko boppam ngir bu génnee mu mën koo yeewi kooku ak dem ci yooyu majalis amul njariñ waaye bokk na ci sax bokkut sax ci mbañum rus dëgg-dëgg dem fi barab ñu fay joxe lu am njariñ loo xam ne njariñam àdduna lay tàmbalee jëm àllaaxira yitteelu ko lu may ma ngay xool ku mu war a filmer wala ku war a foto kese mooy da koy gis sax ci yenn jotaay yu ñuy def ci ay jumaa wala ay muxaadaraat liñ tuddee conférence di ca wax tomb yu am maanaa yoo xam ne ñi ko xamoon da leen di fàttali ñi ko xamagutoon war caa jànge nga gis ko bu jukkeem di jàng kooku lu mu fa wuti wala ñu woote foo xam ne déglu leen ñëpp yi déglu moom mu yorob jukkeem di napp napp di nga gis làmmiñu mi mel na lu koy wax dara wala mel kurusam lu mu fa na wuti te moo toog këram foofa dañ fay joxe te ginnaaw yorit lu mu joxe na toog ba ñu ñëw te bëggut jël loolu sallallahu alayhi ci njàngaleem mu yaatuma joxe na ci bind daa mat sëkk ba amul lenn lu ab jullit di soxla ku ko ca fàttali wala ku ko ca soññ te mënoo ca ne yonent bi nee na su fekkee sa gëstu xaw naa xóot tuuti yonent bi sallallahu alayhi toog na bés di nekk nit ñi ñu gën a bari mu fas yéene tàmbalee wax ak ñoom am ku ko jox hadiya jaaro bu rafet yonent bi di ko niir ak a niiraat léeg-léeg mu takk ko tekki jubluwu ci sagal waa ji rek de ndax léeg nga jox fii nit loo xam ne dara ñoru ko ca waaye day sagal ko ko jox rek di ko wan ne ko bëgg na ko te bëggu ko loolu ak loolu loolu du mu jullit dëgg-dëgg am na lu mu làq waaye moom du gëm du def mukk lu mu gëmul sallallahu alayhi wa sallam ba am ñoo xam ne wax nañ te dégg ko mu yëkkati ko mu tekki ko ci yoxoom ci loxoom bu tedd ba yëkkati ko ne chagalani hada ankum ilayhi nazra wa ilaykum nazra li tax li diggu doon wax wala ñee lañ wax dégguma ko kat man mi lañ bëggoon a waxal lii moo na dox sama diggante gi yéen daan ko wur foo xam ne wër nañ ko far mënuñu ko gis bokkut ak nit ñi yu bari ba mu ko nee kenn xamut fu dal ku ne bëggoon na koo jël barkeeloo ko waaye seet nañ seet xamuñu fu mu dali mu soog a jublu ci jataay ba kon boog ñi nga xam ne fu ñu dem lañuy ñuy seen yitte mooy filme photo wala koo xam ne ma ngay déyaate wala koo xam ne téléphone yaa ngay car car it na xam ne jataay yenn yi dañ faa war a dem jariñoo ji fa waaye waruñu faa dem di fa wane wenn melokaan wu bokkut ak fa santaane <clears throat> waaye bokk na ci it li mot a moytu dëgg dëgg dëgg dëgg koo xam ne saa bu ñu fatoo cib jataay fataale la ca biir jataay ba te lu ñu fa waxtaanee bu ñu gënee dégg ko te kat day joxe firi naan maa diw toog yaag diw toog ngeen di ñett diw diw toog ak yow muy ñett te ñett ñooñu kenn dégg ñaar ña kenn déggu ko ci ñoom kañ ko dégg ci moom te néewuñ ko na ko déggal ñi ci des kooku nu mu tudd lu mat a bàyyi xel la rawatina nag kenn wurta foto nit wala nga di ko filmer te amoo ci ndigalam ndax jëmmi boppam ci moo ko moom dañ ko ko war a bàyyee day dem sax ba bàyyi ko ci àdduna faatu ñu ne ñu tëral ko mën a ñaw te du tax kenn ñëpp sañ ko filmer ndax ba léegi si moomam boppam bàmmeelam ba sax kenn waru ko filmé kenn waru ko filmé ndax bàmmeelam la waaye nañ gën a moytu bu baax ci yenn majalis yi sëgg ci dari nit ñi kenn du femm kenn te kañ ko kañ koy gën a dégtal léeg-léeg lii du majlis waaye xadara la kañ koy gën a dégtal mooy ka fa ñëpp fekki kenn ku ci nekk ma ngay séentu bu fay jóge yawe bu doon naa ko sa waaja nga jëf leen toll dafi mu toll nii ñeen a ku dee di wax yu metti yu ko dal bu ne cell rek da caa bég léeg nga dégg ku ca tixit tixit nag boo déggee yenn wolof yi wax ko mooy mag mu réew rek ne ah yaakaaroon naa ko de wala du ma bett de kooku bu doonoon mar dem si bu ko yàlla joxoon nu muy def su ko yàlla joxoon ngelaw li balaa kenn noyyi fay su ko yàlla joxoon ab jis balaa kenn xool fay ko bu ko yàlla joxoon ay ay tànk balaa kenn dem fenn tàgg ko fay ko nu muy demee yaakaar naa ñu bari duñ dem rawati nag di fa jëw jëw moom sunu borom da ko tere ci alquran ne bu bu leen jëwante moo xam yéen a nga ca xadra ba wala yéen nga ca majlis ba kon boog majlis moom fu ñu ko tuddee nañ xam ne fu ñu joxe xam-xam moo tax ñu di ko wax waaye xadara moom moo gën a yaatu ku ne mën naa ñëw lu ne man na faa ñëw mën nañ fa andi lu nekk waaye ñoom ñëpp lañ ko boole tere bu leen jëwante ñu ne teg mu ne yeen ñi ndax kan moo ci bëgg mbokkam mu ko jege wala xaritam faatu ñu dagg ci yët ko ne ko lekkal ku ko ci bëgg ku ko bëgg na yëkkati loxoom ñëpp ne pat mu ne fa karihitumoohu ni ngeen ko bañ ni ngeen di bañe dem ca wana wa dara laal la fa wala yaxtab baadukum baadan a yuhibbu ahadukum an yaakula laxma axihi maytan fa karihtumu waaye bokk yi ñaar yooyu ni ñu leen di xàmmee majlis tudd na tudd naa ko fi nga xam ne moom la waroom xam-xam yi di joxe xam-xam moo mat a wutali te ku fa dem mu tënku ca teggin ya ab jataay laaj ne tekk di déglu bu fekkee déglu moo ko fa yóbbu bañ faa ngistal yorub téere di wëlbatee ko wëlbatiwaat wala mu bañ yor kurus su fekkee la muy wax mënu ko ñàkk a wax na toog fa muy toog bu fekkee yàllaa tax ba noppi soo ko ñëw déglu si nag ndax fii dañ fi kenn lañ teg ci kaw muy wax ak ñëpp waaye su fekkee ab xadara la nag bu dee majlis la ku cay dem na fexe ba ku mën a yóbbaale yóbbaale la ndax dañ fay rooti te root lu waaye mën a duy rek na ko yóbbaale ku mën a yóbbu nga duyaaleel ko it na la yóbbaale nga duyaaleel ko rawatina nag ndaw ñi rikk nañ leen toqi ci di leen yóbbu ci majaalis yu am njariñ yi nga xam ne ña fa nekk buñ tëralul ay téere nit ñi it nañ fay waxtaane lu am njariñ lu tegu ci dëgg te bañ a jëfe bakkan bañ a topp bànneex bañ a topp ragalante ay gannaaw kese waaye bokk yi nañ moytu bu baax moo xam xadara la wala majlis boo xam ne jàngalewuñ fa waaye séentu nañ fa njariñ ñu moytu lool di fa toog ak ñoo xam ne seen bakkan dong lañ topp wala ka fa nekk bakkanam dong lay topp li nit ñi naan diw yow laay topp kooku moom fu bakkanam dugg mu dugg fa bakkanam rek lay topp ndax toogee jataay yu mel noonu day rey ab xol day jural nit ki ëllëg réccu ak perte defe ne mi ngi baax te dara baaxul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jataay boo xam ne toog nañ fa ba jóge fa waxtaanee mu fa yàlla waxtaanee mu fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la muy jural nit ñi mooy teraataan tera mooy lott ëllëg ñëpp peese doo mën a feesal ak réccu gu jeex an taqula nafsun yaa xasrata ala ma farratu fi janbillah yàlla nañ ci yàlla musal sëñ bu mag bi nag leeralal nañu ko ci yetti bayit yaar daal di indi fa mu ko jëlee boo demee ci térim ba bu ñuy wax nahju qadaa il xaaj mag ña daa nañ wax mag ña ne su ma ko waxee moo ñi ñu jiitu ña leen jiitu rek ñu leen mag ña leen mag seeni mag kuy dem ci majlis boo xam ne tërul tërul lu jiwu fa ab téere waaye ka fa nekk xakiim la boo xam ne lu mu wax téere du ko dindi na ko tànn bu baax ndax mën na koo yaakaar te dem di ko fa fekk waxuma la dem jotaay ba waaye ñam ñam ñi àndal di dem rek na leen na leen tànn wala tusaaxib in aradta suxba da shafahin aw xasadin aw ragba wala tujaalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad fépp foo xam ne boo fa demee doo fa dolliku ci sa wàllu pas-pasub diine kooku mooy kay jàngale doo fa dolliku ci am xel mu ñaw kooku day yeete ci ay xekkam yoo xam ne benn teeg du ko dindi nee na ñaar yi foo ko mënta am daw ko soo leen dawut doo am la nga bëgg mukk soo ko dee wutali nag foo xam ne sa diine dana fa dolli sa xel mu ñaw dafa dolli ko ndax dañ lay yee waar la foofee mooy barab ba fa axbaru bi annama al maru ala diini xalilihi xadiisan nuqila ndax nee na lii mu wax ni du lum waxal boppam nii rek ci coobareem waaye daf ko jële ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi bi mu wax ne al maru ala diini xalilihi fal yandur ahadukum ala man yuxalil wala man yuxaalil am na foo xam ne fii tàgg na fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam lool ca jaaroom booba mu wekke woon sànni ndax am na ñu tax mu jóg wax nañ loo xam ne yëgu ko dégg ko boobu nit gaa fa nekk ndax jaaro bu muy nii rek ak ak a tekki nee na moom dem na ba àgg ci koo xam ne kii lu waay di jàmbat si fa ma nga koy jàmbati ndax ku wax dana la déglu àgg na foo xam ne fii ku jooy moo lay reeloo moo lay bégal ba nga ree ba nga fàttali tax ngay jooy waaye mooy koo xam ne ki xeebul kenn ci kuy wax ak moom xeebu ca kenn bu doon suñu jamono dañ naan soo ko woowee téléphone sax mën nga ko jot mushkin li shaakin walla muskin li shaaki bishrun li baaki musghin li xaaki wa di nidaa'i taggu kawe la waaye am na foo xam ne it nee na ku toog ak moom dana fàtte lu doonoon stress ci moom ndax la muy dotti ci ay noppam di ko dugal ci xolam mënu koo ame fenn dana ko doy sëkk bu dee taw sax du ko yëg ndax day defee ne mi ngi ci néeg bu dëll mbooleem lu baax day yëg ni muy dugg ci kawar yaramam yi ni ko ndoxum taw di di di sotti ko waaye nag nee na foofa ña fa daan jëm ñoo ñoo yay ndax koo xam ne xar bi boo ko xoolee rek day mel ni ab jant mu da dott ya yi ñuy demee kooku rek a mat a toogal moo tax mu ne bani duyuuri maa al xuyuuri baax baaxi suruuri lil julasaa yi moom sëñ bu mag bi nag waxoon naa ndaw ñi te ba muy bind téeréem boobu daf ne mag ndaw a ko tax a jóg yóbbalum ndaw la boo xam ne àgg gut fu mu jëm te mi ngi ci yoon wi waaye borom ba jaaw bu dem ba jàpp ne àgg na it su soxlaa mën naa jël su góor gu toll ci digg doolee mi tolloo mën naa jël su jigéen soxlaa mën naa jël daf caa bind ne fastarilu bil xifdi wa tilaawa wajtanibu majalisa shaqaawa kon ginnaaw majlisu shaqaawa am na majlisu saada am na nañ wutale majlisu saada te daw ba faw majalisu shaqaawa rawatina nag jamono ji moom moo ko gën a moo gën a bari mën nañu tudde léegi xadra tudde duñ ko majlis waaye xadra lañ ko tudde kon boog euh, nit ki ginnaaw faw mu wàlli fenn faw mu wuti ñu muy toogal faw mu wut fu muy toogee ji alxuraan wax na ak moom yonent bi jàngal na ko ko bu nee ci réew mi sëñ bi bind na ko dama indi yii rek waaye lu bare bare bare la loo xam ne day yee nit ki di ko waar waaye bokk yi majlis mooy lan mooy fu ñuy dem di fekk diw diw moomee day tëralal nit ñi seeni téere dañuy jàng ci diine la wala di leen firi alquran di leen jàngal balaaxa di leen jàngal bayaan di leen jàngal mantiq ak fan yi tax ñu mën a jàng ñu mën a xam alquran li muy wax foofu moom dama ne ndax fi ñuy ma di fa wuti di fa fekkee ji dëkk ak dëkk ndax ku mel noonu bareete na koo xam ne dañu koy seeti benn ngir li xew léegi rek bu fa jóge mu ñaanal ko te ba noppi boo demee léeg-léeg nga fekk mu tiim mbooloo mu bari di leen waxal ay ci téere yi te bu julli jotee mooy jiite te bu problème àdduna wax wax problème àdduna jotee ku ne moom nga koy laaj mu wax lam ca xam ndax mi nga am su amagut war nañ koo sàkk ndax jamono soxla na ko lool ndax nit ñi dem nañ ba ku wax ñu ne day waaraate kese kese te xamuñu ne waraate ba diina jeex waraate la waaye nag nit ki suñ ko yee xamal koo ne lii mi ngi leen di dëgmal yéen a ngi ci jëm daa war a nangoo yeewu am na ñoo xam dañoo lànk nangu ñëw yeewu dañ ne fatuus te ku ne fatuus nanguwut a yeewu ku yeewuwut moom bokku ca waxtaan wa kon boog nañ moytu bu baax te xàmmee lan mooy majlis ak xadra xadra moom ku ne dana fa dem lu ne mën na faa dem waaye ba ca gën a mata moytu mooy boo xam ne dara nit ñi lañ fay nekke mooy boo xam dañu fay jëw mooy boo xam ne dañ fay jay kañ fay fekk rek di ko jay mooy jayaxu nga xam ne soo ko newoon tey bu la neexee du taw du ko weddi su ko weddi dëkk na seet suñu borom bëre buñ ko ne yaatee diw dee ca wéri dem nga daa war ne déedéet du man yàlla waaye daan <laughs> waaw moom day na càll kon nangu na ko te yàlla mooy dundal mooy rey eh, id xaali ibrahima rabbi allazi yuhyi wa yumiit ba Namruus taxaddee défier Seydina Ibrahim woo ca kaso ba ñaar ray kii bàyyi kii mu dem ko ana uhyi kii bàyyi naa mu dem loo waxati mu ne ko yàlla mi may wax fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriq fati biha min al maghrib yàlla mi may wax mooy ki nga xam ne mooy jële jant bii penku bu suba ak ci suba di ko yóbbu ca sow ba ba du dox gi ci sow bi fa buhita alladi kafar kon boog bu xadara bi xumba xumb bañ bëgg laa jox lu yàlla moom nga di ko nangu soo ko nangu rek dugg nga duggaaleel gaay yi te ëllëg mën ngaa dem ba defee ne jekk nga bay dànkal dànkali wuti aljanna yàlla gaa yi ne wa yàlla keekat bu demee danañ ko layoog yow kat lu tax am na lu ñu daan wax ak lu ñu daan wut wax te luñ ko mës a wax rek nangu na ko buñ baree rek yàlla ne waqifuhum innahum mas'ulun wool ñee ñu dikk ndax li dal gaa yi ñu leen ko bëgg a teg kat duñu mën a dem bàyyi leen fi ginnaaw ak guñ fa nag nañ teel a layoo fi bala ñoo dem yàlla nu yàlla dafa dégg topp te mosuñu seytaane ak pàkkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin waaye nag ay ventilation assortie de lustre ah xanaa nag moom lii lu bees la dama ni tàq ma ni ay miroir seen salle bain bu ngeen bëggee ay meuble de salle de bain si anam yu mucc ayib ay lavabo commode miroir led da ngay laal rek mu tàkk lii nag moo xara la dama ni du kenn ku dul bâtiment plus import export évier si mbooleem xeet waaye nag baignoire deux personnes ba si une personne mbooleem xeetu robinet ngir seen salle de bain ngir kër seen waañ fépp daal si biir kër gi de yemb na waaye nag réservoir 5000 litres ba 500 litres tànn sa bu la neex lay doon bu ngeen bëggee nag peinture jàpp leen ni ñooy le numéro un des peintures peinture canadien ya gën a gën a gën baax loolu ngeen di peinture avec étanchéité bâtiment plus ni moom la ñëpp di wër ndaxte li leen indil si ay matériels yu xarala nee naa la suñu ventilation si mbooleem marque am na nañu ay Windy 90 ay Coulomb Tom Coulomb Tom 140 120 ak yeneen xeetu produit ay cabine de douche chauffe-eau nag waaye nag ba ci gën a neex mooy léegi la ndox mi di tàng même pas une minute ah mbokki Sénégal mbokki Touba ñëw leen ngeen découvrir bâtiment plus import si Touba ñoo ngi si Daaru Xudus jàkkaarloog marché bi bu ngeen fi accès jàpp leen lépp luy carreau sanitaire lumière peinture duñ ca morom boole nag mbokk yomb ma tax ma ni bâtiment plus import export notre force c'est la qualité ah, Des fontes de très bonne qualité afin de promouvoir la consommation locale. CCPS fournit des tuyaux d'irrigation, des gouttes à gouttes, des rain pipers pour nos amis agriculteurs. Yéen waa Touba ak li ko wër soxlaatu leen ngeen di dem fenn ñëw leen ñu ngi nekk fii ci rond-point Héliport Touba CCPS Touba 77 529 48 12 77 082 31 18 CCPS Sacré-Cœur VDN 33 868 78 68 wala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

tey ni mu doxee ak fii mu àgg niiw na mbooloo mu jóg dara tax leen jóg ñu jóg àgg fa déedéet da gëm Sëñ Tuubaa amul benn société boo xam ne yaakaar naa ne mën na ko war na ko mën a ëpp doole ci Sénégal wala bu ko lu ko ci ëpp doole doxee tuuti dana tiim société yëpp ndax Sëñ Tuubaa dañ tubaab rek ngeen bëgg ma fa rek dina ko ndokk bi nga xam ne man caa bokkoon mhm. fii lañ ma fekkoon ma ko yéen ndokk nga xam ne caa bokkoon mbokki taalibe yi képp ku bëgg a barkeelu ci Touba ca kanam ngeen yónnee Wave wala Orange Money ci numéro bi 78 544 33 33 wala itam boo amee application Wave sa téléphone bu dee ci Orange Money itam mën ngeen a jaar ci dièse 144 dièse 410 818 dièse mbokk yi Touba ca kanam di buntub liggéeyal Serigne Touba ak ñaar téeméer dong jëfe ndigalu Serigne Touba Touba ca kanam ay xeeti cuuraay yu wuute ngir yéen ñi nga xam ne da ngeen yëngu ci kurus wala xeeti parfum yi ngeen di soxla moo xam muy sikki gerle wala oud ak yeneen ba ci wàllu yi wala sérigraphie wala lépp lu jëm ci wàllu multi service waaye ngeen mën faa amee itam billet d'avion yéen ñi nga xam ne da ngeen di tukki waaye bu leen fàtte itam carte de membre yi nga xam ne moo soxal mbirum Touba ca kanam wala barkeelu yi bu dee moolu xasida yi am na mooli Touba daaru saami wala mooli asna xadim yi wala daarul himma wala yu daaru minam xasaayid yi bàyyiwuñ dara lépp loo xam ne daal soxal na jumtuwaayu murit ngir ay leeral mën ngeen a woote ci 77 144 03 03 wala 76 755 60 60